naan bikum ñi ñu dénk wàllu wote yi DGE fa ñoo lànk bañ ne du ñu jox Ousmane Sonko fii si parrainage am yi te mooy yéene kaay ne ginnaaw bu xàttekatu Ziguinchor ba santaane ñu dugalaat Sonko ci liste électorale yi ba pare joxe notification ba la koy firndeel Ousmane Sonko yónni mandataire am ba di Ayib Daffé waaye démb daal fa dem ba ca daluwaayu DGE gars yi fañ ko wax na ko xalaa ma niir bàjjo xalaa xalaa doo fi dugg mu ne leen man faa ñëw jël fii fiche parrainage na ko waa léegi GIE fa wax na tey du dalal kenn kon doxal ñi bi ba mu génnee nag moom Ayib Daffé taskatu xibaare fañ ko tàllal micro mu ñaawlu doxalin bi nga xam ne waa DGI def nañ ko yaw seetal ci vox populi fa wax na ñun état bi ñu yor état policier la dictateur boo xamante ne fay bañ a jëfee li attekat yi santaane waaye nag faa leen di wax leen ne ñun fa ñuy ñëwaat waxtu nekk xeex ba ñu jot fiche yi yéen kaay bi ne avocat yi maire bu Ziguinchor ñoom it fa ñoo génnee bataaxal ñaawlu li xam fa ñoo jàpp ne yoon ci boppam fañ koo ñàkkal fayda nga xam ne ñooy atte ñoom avocat yi fa ñoo fàttali njiitiram Macky Sall na ko le 4 juillet 2023 bi yàggu dara mooy keroog bi ngay wax naan doo nekk candidat 2024 fa waxaale fa ngay fexe ba mboolem lu attekat yi atte fañ koy jëfee bés bi yéen a kaay na DGE nag fi mu toll yëf yi fa deseneere loxo yor yor yéen kaay na ñii li ñu def fa garaaw yoon wàllug loi ñoom nekkuñ ci viole kay salfaañe article 47 bi nga xam ne moo santaane ne attekat bu joxee dogalu atte fañ ko war a jëfee ñoom loolu e nga lan moo tax ñu bañ a jox Ousmane Sonko fiche yi mooy ne Sonko fi ñuy wax ak gaa ñi dugalaataguñ ko ci liste électorale yi source ay yéen na ko faay dëggal nga wax te préfet bu Ziguinchor moo war dugalaat Sonko ci liste électorale ginnaaw bu ko yëgalee jëwriñ ji dénk wàllu biir réew mi kon préfet bi moo ci des pour ñu jox ko fiche moom Sonko faw rek fañ koy bindaat ci liste électorale waaye yéen bi nee na ci àjjuma ji Ayib Daffé ndaw Ousmane Sonko fay delluwaat ca DGE buñ leen bañ jox fiche nag dàquñ sax ba pare yow nga bañ koo jëfee mais loolu fa yéeme si du quotidien na ko moo taxit Sonko moom ba léegi mi ngi ci touche yi maanaam bokkagut nekkagut candidat ña am candidat nag muy waa taxaw wal fajir yéene kaay nee na ginnaaw bu ñu tekkee seen domba tànk ci groupe parlementaire yeewi ci assemblée farandoori Xalifa Sall gi député taxaw yi fi mu toll nii de kenn du leen laal de tribune yéene kaay ne wàllu parrainage bi diggante wàññi ay candidat ak éliminer xañ ay adversaire ñu bokk ci wata 2024 lii moo fi am yaaw fa ngay xool ëtt attekaay bu sedd yaawoo fa dàq loi parrainage bi nee na jaarut yoon gars yi fa ñëw violé réewu Afrique yi l'observateur moom fa xëy di laajte ne waaye Mame Boye Diao candidat 2024 tekk tekkaaram noppi gi mu noppi ngi jël ay audience mi ngi lijjanti bu baax wàllu parrainage la mu ñu wax moom laas yéene kaay mooy ne Sall jébbal nañ ko lenga ya ci jëwriñam ju bees ji mu jiite muy wàlluk yoon justice ba jëlee lenga ya nag fa wax ñeenti jéego yu mu fas yéene bokk na ca fexe ba ñu ñu tëj kaso lu yàgg te attewuñ leen loolu moom jeex fi ak yeneen yi ni mel li yéene kaay ne Aïssata Tall Sall kaay ñuy wax rigueur farlu xarañte moom la fas yéene doxalee ministère am ba le quotidien yéene kaay moom fa ñoo xamal ne Bambilor fitna ju métti moo fa amoon jàppante diggante takk dere ak askan wa ah, yaaw seetal askan wa la leen métti ba tax ñu doon ñaxtu mooy lotissement ñaar fukki hectare ak ñaar yoo xam ne ànduñ ca moo tax seen mairie ba fañ ko rajaxe ba mokk xam nañu ci am ay gaañu-gaañu xam ñoo xam ne takk dere fañ leen a teg loxo la ñu bëgg a tàmbaliwaat yeesal ko ci dendu Afrique mooy chemin de fer la soleil yéen a kaay ñu ko xamal l'évidence yéen a kaay moom fañoo ñoo xamal coowal suuf grande mosquée ca jumaa ju mag dañuy wax masaalikul jinaan mbàkki yu fay nag ak sëriñ bas ña ngi leen cay tudd ku tudd réewum Sénégal faw nga wax ki njëkk a nekk président bi muy Léopold Sédar lam amoon ca alal France moo xam kër la ay jumtuwaay lépp tubaab yi français yi fañ ko bëgg jënd waaye léeg si ko yéen a kaay na njiitaram Macky Sall fa bañ ba tëdd ca naaj wa nee na loolu du ko seetaan état bu Sénégal fay jënd mbooleem moomeelu ak jumtuwaayu Léopold Sédar ñu andi ko fii ci réew mi looloo gën a rafet li rafetut ndax fa ñaaw di musiba naaru laay tooxi doona bu am ca diwaanu Kolda yaaw seetal fa xam benn moodu moodu bu jógee bitim dof yi rek fekk baayam fa mu toog mu daal di ko koy mbuqi fa jàpp baayam di ko dóor di ko dóor ba bàyyi ja sedd guy tàll ñaret faatu ñàkk ba kanam allah mu hëlbatiku nar a yaayam yaay ja mucc observateur moo ñu ko xamal am na nag ñuy wax ne moo moodu moodu ba fa wérut fa manqué <laughs> waa ma ne noonu rek la wan a demee ku tàqalikook sa sago dof rek mooy tiim sa ndey wala tiim sa baay di ko rey laaj bi kay mooy xalame fan la manqué bitim réew gam nekkoon wala bi mu ñibbisee Sénégal